مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب بالعلم والإيمان مركزنا ينادي وصحبة القرآن مركزنا ينادي نبغي رضا الرحمن مركزنا ينادي والفوز بالجنان مركزنا ينادي بالعلم والإيمان وصحبة القرآن نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا مقادر السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا مقادر السحاب بهن الكلمة الشماء مركزنا ينادي والعز والإباء مركزنا ينادي فلنحمل اللواء مركزنا ينادي ولنصعد العلياء مركزنا ينادي بالهمة الشماء والعز والإباء فلنحمل اللواء ولنصعد العلياء مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا قدر السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نقدر السحاب ونشعل مركزنا ينادي بروعة الإسلام مركزنا ينادي بالجد والإقدام مركزنا ينادي وليس بالكلام مركزنا ينادي ونشعر الأنام بروعة الإسلام بالجد والإقدام وليس بالكلام فسم بسم الله مركزنا ينادي وجرب الحياة مركزنا ينادي مع إخوة في الله مركزنا ينادي دعوك في حنان مركزنا ينادي فسم بسم الله وجرب الحياة مع إخوة في الله دعوك في حنان مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى درى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا قدر السحاب ولا تقل غدا غدا مركزنا ينادي فإنما العمر الثمن مركزنا ينادي ومن يعيد المجد من مركزنا ينادي إلا فتى الفتيان مركزنا ينادي ولا تقل غدا غدا فإنما العمر الثمن ومن يعيد المجد من إلا فتى الفتيان بسم الله الرحمن الرحيم طلائع الشباب هلموا هلموا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 ndax keroog ba ñu déggee ne sëñ Mbàkke soxla noo génn na àdduna. waaw la ñu ne ah kon nag. rihlatun ila daaril axira. macha allah maanaam ci martial koo gis tukki boobu mu mu jublu. walaay ndeysaan ci nga ci nga sose woon thème boobu. walaay ndeysaan. allahu akbar. am na 15 ans samedi passé. macha allah. cey kenn mësu koo gis wallaay maa ngi fàttaliku fajar gi nga ci njëkk waxtaan noonu waaw waaw defe naa ci laa wutoon téere ba sax <laughs> boobu nag lañ ko topp waaw ndeysaan <laughs> ndeysaan booba ba léegi yaa ngi benn bennal booba ba léegi maa benn bennal ci toll nii ci tukki bi xanaa tukki fukki at ak juróom de war ngaa sori <laughs> wax nga dëgg de ah. léegi daal ñu ngi toll ci aljanna lu ñu fay lekk waaw lu fay naan hmm. ci yooyu la ñu toll masha Allah ku dem aljanna lan ngay lekk ak lan ngay naan wallaay ndeysaan waaw ci yooyu la ñu toll waaw macha allah sama bàjjen mu daan wax ne samedi du ma ndékki mhm. ma ne ko la xaw ma ne ma xanaa sa réex la tun googu wallaay dafa dafa dafa yéeme de wallaay de lan moo taxoon nga xalaat ko ci demuk sëñ Mbàkke soxna Lo gi jëf laaj nga laaj ba am solo mhm. xam nga nit koo xam ne ki danga nga am personnalité mhm. am jëm am maqama am xam-xam boole ci mën a solu hmm? doon doomi kilifa nekk kilifa wallaay malakal mooti ñëw jël la nu jël la denc hmm. loolu war nañ cee tebaar nun ñëpp waaru dëgg la dëgg la oustaz hmm? dëgg la ma daan ne kon nag rixlatun hmm. ila daaril axira waaw dëgg la wallaay ndeysaan macha allah am na solo yokk yërmande amin yaa rabbal alamin mhm. amin amin jërëjëf oustaz noonu baax na macha allah alhamdulilah na ngeen def ak coono yi noo ngi sonn sëñ Mbàkke alhamdulilah di sonn di sonn rek <laughs> te te te a noppalu waaw waaw mm, di sonn te bañ a a noppalu kiimaan la de mhm. xam naa lu naqaree dégg lay nuru de moom di sonn te bañ a noppalu waaw comme noppalu gi mooy dem tëddi waaw dem tëddi mhm. te xamal la ngay fekki loolam mën nañ la ko wàññil temps bi nga def ko fii mhm. mhm. nopp lu baax a baax a baax ba mag ba kumur wallaay dem nag tëddi wallaay ndeysaan na eh, yéex amiin kon su ma la déggee àdduna moo nekkut barabum nooflaay waaw kay àdduna hmm. laqad xalaqna al insaana fii kabat hmm. yaa ayyuhal insaan innaka kaadihun ilaa rabbika kaddan xam fa mulaaqi wallaay moo tax àdduna amul amul noflaay hmm. xam naa entraînement rek la noppaloog yooyu waaye noflaay mu ngi fi. dëgg la waaw la ma waxoon sama bàjjen yaay Maodo. waaw fii amu ci nelaw. ndeysaan entraînement fi nekk. dëgg la rek mu xëm bay fa ndékki la. dëgg la de <laughs> macha allah naka coono yi ak réew mi. waaw réew mi de moom suñu mbàkkee. ñu ngi xumb rek. ñu ngi xumb rek. <laughs> réew la de. ni ma la ko daal. waaw réew mi am. ndeysaan ñu ngi xumb rek. Mm-hmm. Mm-hmm. xam naa xaw ma nag kañ lay euh, am ak dal. Mm-hmm. stabilité gi ñu soxla mu ne dégg. baax na ci de. mu hmm. liggéey nag. Hmm. ndax nu dabi suñuy borom. wallaay waaye bu ñu ko xam rek. maanaam ñu amoog daal ba liggéey yi daal. waaw waaw cest à ñun dafa mel ne kon li ñu wax daa ëpp li ñuy liggéey. li ñuy wax mu ëpp li ñuy liggéey. Hmm. moom. moom li ñuy wax rek. ndeysaan ñu ngi wax ñu ngi campagne. ñu ngi coow. ñu ngi xase. ñu ngi yàq der dooy wax rek. wallaay wax rek tey. te am ku mel ni suñu Cheikh Mbacke nga xam ne gaynde Fatma wax ji dafa néewoon lool. waaw ndeysaan waaye noonu wax rek. Ah, dégg naa day waxam ni woon na lool ba noppi ay jëfam rëy lool. waaw ah, am na sax ku ko doon wooyee. moom alhamdulilah mu bëgg <laughs> ko ko yoon. bu wax ji néewee Cheikha. Mm-hmm. bu jëf ji bëree Cheikha. est-ce <laughs> lañ ko waxoon. est-ce que ndeysaan. macha allah am na solo de oustaz xam naa ay bis gi moom ay bis gu euh, xaw a xumb la. Mm-hmm. bu doon ci wax yu olof dañ naan takkarnaase na lool ak ay xew-xew. ndeysaan benn bu ne bu ñëwee ba nga koy yéem rek beneen day ñëw daal di koy folliwaat. waaw waaye bi ma ciy njëkk indi day dellu ci wàllu njàng mi. Mhm. bala maa agsi ci manifestation yi. Mhm. ndax ay bis gee ñu génn ñu baree bari euh, seen xel daa demoon ci ne bu ñu agsee ci ñaari fan ci weeru juin wi école yi dañuy ubbiwaat xale yi war a jàng jàng. Mhm. ba ñu gisoon sax ay vidéo yu tasaaroo woon ci jàngalekat yi doon dellu ci jàngukaay ya. coow li bari woon lool waaye daa mel ne loola daa mujj fomm oustaz gannaaw ba ñu ne daa am ay jàngalekat yooyu tawat ji leen alawti ko. noo koy jàngate. alhamdulilah jërëjëf Hadj Mbacke mm. jërëjëf mbokk yi ñuy déglu ci biir mu mi bitim réew xam nga ñu baree bari dañu waxoon ne pour jàngalekat yi dem jàngale ji daa ajuwa ay taxawaay yi ak waajaay dëgg la buñ ko taxañee rek nii lay niil fii lay mujj dëgg la moo tax buñ ko taxañee fii lay mujj mooy kon bu ñuy delloo ji ay jàngalekat te am feebar bu ñu ragal te mën a wàllee nii ñu ko waxee nii kon waajaay yu ma sëkk moom lay ajuwoo la jiitoon ci waajaay yooyee bañoon leen a dajale ci benn barab ne carré fa leen di jël see la ca jiitu woon waaw waaw maanaam niñ dajee woon ci liberté 5 mbooloo moomu mel ne gàmm wala màggal lu ne mën na caa juddoo waaw dëgg dëgg est que sax ñañ ñañ ñoo ko am est-ce que mm. jëlee ko foofa ah bu dee ña nga woon ci mbooloo moomu sax de te mbir mi di wàlle ni ñu ko waxee moom tasaaroo na kon waaw <laughs> léegi nag nga bëgg a dugg nag kaar ya mm. bëgg a dugg Dakar dem dikk ya seet ñaana ca duggoon mu indi leen jeneen coono loolu mooy kon waajaay woowu foofu war nañ ca bàyyi xel bu baax ndax mënoon nañu ne ñi nga xam ne dañuy jàngale ji barab sàngam buntu stade Demba Diop ab arrêt la wala bu stade Iba Mar Diop ab arrêt la nga xam ne mat nañ ñetti arrêt ba ñeent juróom kaar ba fekk leen fa roñ leen te kaar ba fu do fu ñett doon toog ñu bàyyi kenn mu toog fa waaye bu ñu solee ba mu fees lii mën na ci am mm-hmm. donc waajaayu foofu sëñ Mbàkke war naa nekk waajaay wu gën a wu gën a waaju waajaay wi jëli leen fa ñu nekk dugal leen ci kaar yi teñ sore raxasu ba la ñoo yëg mhm. sol seeni masque dem fa ñu jàngale ji lu du loolu mën nañ koo am yóbbu ko foofa wàll ko ñooña euh, mu def nii mu def rek. Mhm. jërëjëf ci laaj bu am solo bi. ah macha allah am na solo oustaz nga xam ne kon daa mujj mel ne rek yalwaan ju këpp la ndax itam njàng ma itam delloowaat nañ ko fañ ko tegoon ne ko teggandi ci suuf. Mhm. loolu moom euh, ak dogal yeeg ni ñu koy defee am na sax ci wàllu politique ñuy wax ne mbir mi daa xaw a nuroo ko làmbatu damaa mm. ba xam baat boobu dëppoo naag mbir yëf yam déet mm-hmm. waaye oustaz nooy jàngate yëf yi li ñu mel ne daal dañ koo ba téye lépp léeg-léeg ne ay ca ba mu yàgg ñu ne toog leen waaw man de waxoon naa la ci suñu bind yële hmm. keroog ba waaw ni ñu wootee woon hmm. ni ñu wootee woon hmm. xam ne leader politique yëpp lañ leen a woo ñun ñëpp ñu bokk ci waaw deuxième point bi noonu lay waroon defaat troisième bi ñu defaat quatrième bi ñu defaat ko waaye su fekkee dañ ko wootee noonu léegi defuñu ko mën nañ cee dem ci biir demee ci demin woo xam ne wii mën na jur mën na jur lii. xam naa buñ ko tuddee làmbate it. danañ ko tuddee noo xam ne daal bu gënoon na yaatu ca la doon gën. ndax lu ñëpp bokk. dëgg la lu ne ku ne na ca. dëgg la nañ ci boole ñëpp. macha allah ker bi ñu ne dañ ak kaay ñu song feebar bi. waaw ñëw def ca. Mm-hmm. am na sax xëy na ñu defut peut mm-hmm. waaye ñu bari def ca. Mm-hmm. ñu bari wuy ji. Mm-hmm. bu ñu tollee ba dajale lañ dajaloon dañu war ne ñëwaat leen. ndax dajal nañ fi juróom-ñetti dërëm. nu ñuy def juróom-ñetti dërëm yi. suñ ko defee noona. defee noona. bu ñu noppee ca lool daal di ñëwaat leen. nun kat feebar dafa toll barab sangam nu bëgg seen xalaat nun ñëpp ñëpp xalaatandoo rek la bëgg a wax. dëgg la dëgg la ñëpp xalaatandoo. ndax. Euh, loolu wa amruhum shura baynahum du du du jenn laay ci alxuraan du ñaar laay yu bare bare bare la wa shawiruhum fil amri wa am amruhum shura baynahum nangam nangam maanaam daal am yow dañ koy waxtaani ba yàlla tudd aw saar tudde ko suuratu shura suuratu waxtaan est-ce que waaw kon yooyu mën na jur nag kon su boobaa nga dugg ci dara ndekk dugg nga sottiwut wala am na yu des. wala am na ñu doon waajal. su ko defee bu jë bu daal juree dellu ginnaaw rek wala nangam ki nangam bu dee ñaar yoon ñetti yoon dañu daal di commencé nag am aw fiitu dëgg la euh, song yëfi. macha allah muy lu am solo oustaz kon njàng ma moom mi ngi noonu ak coowam euh, donte sax euh, maanaam wayjur yu baree bari demuk école gi sawaruñ ci woon. ndax jàppoon ne daal yi ci war a aju yëpp amu ci. dëgg la faf sax mu mujj fii moom xaw naa doy waar. dëgg la ma ñëw nag ci manifestation yi oustaz ay bis gii da cee xumb lool. ndax couvre-feu bi lañ bëggoon ñu jëlee ko fi. ak itam dem beeg dikk bi ci wàllu transport bi. loolu nag indi woon na ak euh, yëngu ak yëngal ci biir réew mi yëpp. ba fii ci biir capitale bi di Ndakaaru. Mhm. nooy jàngate taxawaay yooyu. taxawaay yooyu suñ mbàkkee jërëjëf. Mhm. mooy ku ne ci penc mi mu am luñ fi ragal. Mhm. jàpp ne mën nga koo jëlee ci penc mi yóbbu sa kër. wala nga jële ko fa nga nekk indi ko ci penc mi. ñu ne leen toog leen. ñu ne ñëpp nañ toog seen kër. loolu moo indiwoon yëf yi. waaw nag boo ñëwee ni toogal sa kër. da nga ko am lii te toog. waaye doo ko wax toogal ma ñëw. dëgg la am wax toogal ma ñëw. toogal ma ñëw ji nag ma ñëw ji moo xaw a yàgg ña toogoon génn. ne ne yéen fu ngeen toll <laughs> loolu la. bu fekkoon da nga ne am lii te toog. te am lii te toog suñu mbàkke mm. ñoo ngi ko mën na jaare ca ker ba mu waxee ne ñu bari sax xam naa loolu lañu wax mm-hmm. mooy fexe ba bañ a jënd ay ceeb ak diwlin di yóbbu waaw dëgg la de fi nga àggagul ñoo yàkkamti génn waaw mm-hmm. te daa mel ne itam dox boobu dafa xaw a yeex doxub ceeb bi mun te ñàkk yeex waaw doxub ceeb bi de am na nu mel de mun te ñàkk yeex mm-hmm. léegi nag nit ki danaan ko am lii te toog waaye boo na ko toogal mu ñëw boo yàggee fa nga nekk dalay lay fekk si ne la ah foo toll ndax itam bi ñu tàmbali fii am na ñoo xam ne sax d'accordoon nañ sax ci ñu def confinement total faf toog waaye booba ñi ngi xaar ndimbal yi ñëw waaw wala mu mate ko waaye toogaay bi day bëgg a yàgg toogaay bi dafa yàgg euh, rawat na oustaz ci wàllu transport bi ñoom seenub toogaay yàggoon na lool te metti woon na lool damaa xamul ba xam loolu dana doy dayoo ci ne manifestation bi jaadu na wala ñu ne déet waaw manifestation moom wax dëgg yàlla génn ci mbedd yi di yàq di yàq ka taalipana moom mm-hmm. ñun ñëpp li ñu njëkk wax mooy no mm-hmm. violence non waaw waaye nag nit ki li ngay def ba mu génn nag loolu ngay moytu dëgg la waaw la ngay moytu dafa am loo xam ne moom soo ci àggeeg nit day génn parce que boo ne ko toogal ne ñi def transport toog leen ñi def nangam toog leen ñun ñëpp a toogoon ah ñëpp a toogoon wax ñëpp a dëgg yàlla mu des nag bi nga toogee ki lay wax ne toogal jàpp ci lii foofu mooy foofu mooy yeex waaw lool bi nee ba léegi ñu naan cinquante pour cent yi dem na ak soixante pour cent yi dem na ana quarante yi ah ñi quarante yi jëm ñoom pour cent mm-hmm. ñoom ñoom lu ñu def ah, xam ñu ëpp ci réew mi jotaguñ ci day tegtal leen eh, maanaam xel mu daal da dul xaarati jeex na loolu dong kat la <laughs> ah, dëgg yàlla mm, taxul nag ñu ñu ñu ñu favoriser mbirum violence wala génn ci mbedd di taali pënu mm-hmm. waaye daal eh, yow mi naan waa ji toogal mm-hmm. yaay fexe ba mu toog te nag loolu suñu mbàkki mënoon na am su fekkoon tey bi ñu ne bi ñu ne toog leen suñ bàkkee daa xool téléphone am gis ci quatre-vingt mille cent quatre-vingt mille deux cent mille lu xew ki na ko toogal moo ne ko jàppal ci lii waaw mu mën koo korkoral de kon nga nekk ci waaw kon di hmm. loolu lay benn hmm. bu ñaaral ba bi nga daan jënd kilo ceeb deux cent cinquante hmm. nga dem rek fekk muy soixante quinze nga jënd ñaari saako teg daal di toog dëgg la di xaar feebar bi wuri nga génn waaye yooyu ñuy jàppale nit ñi toog su fekkee daa yeex yeexi nam wii hmm. su boobaa nañu defee mooy ba muy tuut génn seeti gaañal ana li nga ñu doon dig macha allah moo jur moo jur ñol ñol ji sëñ Mbàkke ci dëgg la lu am solo la oustaz dafa am nag geneen eh, jagle gu ci am goo xam ne yàgg maanaam baaxoowuñ ko gis ci manifestation yi mhm. ndax léeg dañ daan wax naan waa daara ji ñoom duñ manifester Mm-hmm. waa daara ji lu leen man di dal itam ñoom dañ koy muñ ndax am nañu ay delluwaay daal mm-hmm. euh, loolu nag daa laaloon dëkk yenn yi ba dëkk bu mel ne Touba bokkoon ci mm-hmm. dañ seetlu nag lu ñu fa mës a gis mag ñi laa dégg ñu ne mësu faa am euh, moo fa am mooy génn di manifester ak a taali puno ba xalifa bi génn xaaju guddi yëkkati kàddoom xëyaat door caa euh, toftalaat yeneen i kàddu yoo xamante ne kàddu yi dànkaafu la ak am lool ak yëg-yëg ca la fa xew loolu noo koy jàngate waaw jërëjëf ci euh, dugg ba am solo bi ñoo ngi ziar al mm. ko ñaanal tawfiq ak wér gu yaram amiin euh, di rafetlu ay mawaaxifam mm. ndax lu xew lu ne nga dégg mawaaxif ba nga xam ne ci la moom la ci am muy position bi mu jël tabaarakallahu pour def leen ndàngam mm. euh, gis nga sëñ Mbàkke mbirum mbirum génn ak mbirum manifester yooyu léeg-léeg dara ñol ñoli fenn mm-hmm. daj pénc mi yëpp dëgg la daj penc bi yëpp. ba waa daara daw ñu jóg. waaye tey li dal ñëpp daa dal daara te daara gën ciy métti li. li dal ñëpp. daa dal waa daara dal waa daara te waa daara gën cee métti li. ndeysaan am na daara yoo xam ne dañu leen toog leen du leen ngelwaan. fab gone yóbbu. am na ñoo xam ne fi ne seen daara. daanaka mën nga ne tëj na. dëgg la wala boog fay na. fab gone yóbbu. waaw. man de looloo ma ci gën a jaaxal. waaw. Euh, am na ci yo boo xam ne te jii ci ngoon rek la ña nga barab sàngam. ñun ñëpp ne dañuy roñ dongo yóbbu. sëriñ daara ñel du ngeen leen roñ yóbbu. léegi loolu mën naa indi ñol ñol loolu nag mooy la xew ca ca ci nga xam ne nit ñi génn nañu ca mbedd ma lu tax ñu génn parce que li dal ñëpp dal waa daara te waa daara gën cee sonn waaw taxul sëñ bi nag nee leen xool leen ci man nag waaw ndeysaan wax ju daw yaram la wax waaw xool leen ci man wax ju daw yaram la wax loolu nag dafa am solo gis nga sëñ Mbàkke suñ mbokkum daar Oustaz Ahmed Dame Ndiaye day wax lu am solo. mu ne nee sa sëriñ. li feeg bu la convaincre doo topp lam la wax. amagoo sëriñ. <laughs> léeg-léeg da ngay nangu tudd la convaincre. da ngay nangu tudd la convaincre. est que kon dëkk yu mel noonu lu mën a xew. dañu war ne dégg rek. bu wax ju dee sëñ bi dana wax. bu def jotee dana def mm. bu santaane jotee dana santaane mm. bu tere jotee dana tere mm. boo ko yàkkamtee ba jóg nag walaw annahum sabaru xata taxruja ilayhim la kaana xayran lahum wallaay ndeysaan wa shukran ci salaaj ba am solo muy lu am solo oustaz ndax ñàkk euh, kii boobu ci kilifa yi politique bi lañu daan am ci ñoom loolu waaye léegi nag day mel ne day raam bay ñëw ci foo xam ne foogewuñ ko fa woon. Mhm. ñaare sax ab sëriñ day wax ba noppi boo xoolee commentaire yi wala position yi ci nit ñi di amaat. dalay xaw a yéem daal ci yenn euh, taxawaay yi mhm. liberté googu liberté googu nga xam ne am na. Mhm. moom moom xawute yéeme. waaw bu bu jëmee ci kër sëriñ rek mu yéeme dama. liberté googu. waaw démocratie boobu. sañ-sañ yooyu. bu jëmee ci kër sëriñ rek mu yéeme. dëgg la kër sëriñ si dañoo waroon. ki nga xam ne moo fa nekk. bu déggee kàddu. bu ko neexee bu ko neexut bu jubee bu jubut walaw taamara aleykum abdun habashi loolu yen di waxoon sama wataa rek mu ne même su fekkoon yéen arab yi yéen xuraysh yi bani hajim bani abdu manaaf dañoo jël jenn waay ca afrique jële ko ca éthiopie indil leen ko sax mm-hmm. war ngeen su ne acc rek ngeen a acc dëgg la walaw taamara aleykum abdun habashi loolu nag bu bu tàmbalee dañ wala muy tàmbulee wàññi ko ni nga ko waxee léegi ah fi ñu jëm du foofu nag nañ delluwaat ginnaaw nun ñëpp mm-hmm. nangoo am kilifa te di leen déglu macha allah wa shukran muy lu am solo oustaz xam naa boo ko dee xool day mel ni lépp day delluwaat ci ndoddum état bi de ndax euh, bu dee tey fu mel ne Touba boo xoolee bi tawat ji ñëwee euh, seen manifestation yi dëgmaloon yëpp dañ koo fomm tam nekkoon yu rëy yu am ay wàccuwaay màggal mm-hmm. Kazu Rajab ak nangam xalifa bi jël lu tolloog ñaar téeméeri million joxe mm-hmm. ak yeneen yu baree bari man daal xeetu doxin wu yeex week niñ doon nosee mbir mi ba askan wi àgg ci fippu xam nga oustaz ki ne toogal sa kër ndax dañoo bañ nga feebar mm-hmm. bu demee ba génn damay génn far force ba mu jaral ko taali ba ay bakkan rot ci démb loolu itam dafa nekk loo xam ne yéeme na waaw yéeme na de eh? wax yéeme na de <laughs> yéeme na loolu de mooy daal moom eh? suñ jàpp ci li toog rek moo war na am jeex na toogal ma ñëw. Hmm. dafa yéex. Hmm. jërëjëf. macha allah am na solo oustaz jërëjëf léegi nag euh, daa mel ne bi ñu yëngoo ko yëngal am na ak coppat goo xam ne tàmbale na cee am mooy transport bi nee nañ euh, danañ ci defuk yolomal euh, wàllu couvre-feu bi itam yéegal nañ ko ba 23 heures nooy jàngate décision yooyu nga xam ne jël nañ ko. daa war na jiitu manifestation yi. Hmm. bu tegee ci kaw manifestation yi rek. am na lu muy tekki. daa war a jiitu manifestation yi. bi nga ñi ngi ñi ngi ñu koy togg. Hmm. bu fekkee war ngaa jël benn taxawukaay da taxawaay da koy jël balaa yooyu di am. Hmm. boo ko jëlee ginnaaw manifestation yi. Hmm. day mel ne manifestation yi. voilà te nag loolu ci ci pénc. baaxul ci crédibilité état. dëgg la baaxul ci taxawaayam. kon bi mu ne ño ñoxeet di di tàmbalee fu jëm foofu. ngay jël position jël taxawaay yooyu. yi nga yolamal nga yolamal ko balaa dara di xew mhm. boo bàyyee ba nga def ni nag nga def ko ginnaaw yolamal gi nag su boobaa léegi bu dara xewatee ñëpp dañuy génn mhm. ko def di wutig yolamal dëgg la waaw ñëpp dañuy génn wutig yolamal dëgg la te su boobaa euh, waaw li muy togg ci pénc bi mhm. du xeeñ neex dëgg la ah. wallaay muy lu am solo oustaz ubbite gi nag ci wàllu transport bi ak euh, parce que ci couvre-feu bi tax laay ñëw ndax oustaz ñi manifester ne nañu dindi couvre-feu bi nañ ko gën a yéegal nañ ko gën a nàngam maanaam tey ku leen laajoon ni leen ban soxla ngeen am ci guddi gi ba bëgg ñu yéegal couvre-feu bi <laughs> ndax itam doo xam ba xam ñu war a liggéey yi ñoo bëgg ñu dindi couvre-feu bi wala ñu bëgg a fooy yi ñoo bëgg ñu dindi couvre-feu bi wala couvre-feu bi lan la yàq. waaw bu bu dee ci penc bi de moom. waaw toog leen heure sàngam ba heure sàngam. Hmm. moom lam yàq bëriwul ndax yaakaar naa ne. ku ne ci penc bi liggéey ba vingt heures mhm. vingt mhm. la nga doon liggéey lépp war naa sotti wallaay wallaay du dëgg mhm. waaye ki tàmm génn waxtu yooyu tàmm dem ci mbedd mi waxtu yooyu tàmm tàmm dem ci nagar wala taas yi waxtu yooyu moom loo def lu mu ku tutut moom lu ëpp na ci moom dëgg la dëgg waaw donc bi ñu ko yëkkatee jëlee ko vingt heures indi ko vingt et une heures loolu daanaka mënoon na caa mënoon na caa xas sax léegi nag ndax ñiy manifester dañu couvre-feu bi la. Mhm. wala toogaay bi ci boppam la. Mhm. waaw foofu am na sew sew. waaw am na sew sew foofu am na sew ndax nit mën naa génn ne couvre-feu bi nangam. Mhm. fekk est-ce que du liñ téye nit ñi ci kër yi rek. moom toogaay bi rek moo ko toqi loo la. toogaay bi moo ko toqi loo waaye du heure bi waaw. peut-être peut-être du heure guddi beeg ñoom seen yooyu. léegi nag boo ko yóbbu ba 23h. 23h 5 du matin loolu taxu ko bëri lool. dëgg la waaw taxu ko bëri lool. macha allah damay defar bu fekkee gars yi loolu taxu na génn. wallaay kon nekk ni mën naa am kenn duutu génnati. dëgg la de waaye daal 21h ba 5h. Hmm. Hmm. loolu moom ci ci ci ci penc mi. Hmm. man sax dama doon xalaat ne est-ce que bu li weesoo duñ ko far bàyyi noonu rek. benn waaw waaw ndax <laughs> maanaam guddi gi ñu def ko noonu ndax mu gën a am sécurité gën a dal amoon nañ noflaay amoon na yu bare bare yu ci amoon wax dal xanaa xëy na ñi yoroon yenn liggéeyu guddi yu mel ne yenn restaurant yi yenn barab yi nga xam ne ñi dañ fa daan daje ñi ci ameem koom-koom ñoom dañu bëgg moom loolu ah, delluwaat moo moo taxe delluwaat ci waaye moo taxe waaye a jafe boo demee ci bitim réew hmm. da nga si bari boo xam ne marché bu man di liggéey 18 heures doo liggéey hmm. moo xam hebdomadaire la moo xam yeneen. dëgg la 18h. Hmm. kenn ku ne laf say caabi. ñu raxas marché ba. pompe ko def nangam ak nangam bàyyi leen bu suwaa ku ñu xëy ñu xëy si mm-hmm. loolu noonu la ñuy def ñun nag la ñuy naa transport bi naa ñu waxtaan ci lool mm-hmm. ndax daa nekk mm-hmm. sonn lool ak ñi nga xam ne ñoo daan dund ci wàllu woowu di ci liggéey ndax même dimbali ñuy wax sax bu fekkente ne transporteur yi lañ koy jox te ku ne gis na fii xeet yi façon bi ñuy jëlee chauffeur nga xam ne mën naa am amut contrat amul ay eh, nangam nangam yu bare bare amu ko dañuy waxtaan ba juboo rek nga jox ko say caabi bu versement bi tardé ñaari yoon nga nangu say caabi mm-hmm. loolu itam man njàngat lañ ciy def loolu de xam naa corona mën na am mu mu ko am lum ci <laughs> <laughs> am lum ci réglé ndax yàlla <laughs> sëñ li doon yoon mooy boo joxee chauffeur oto mm. mu daw ba am trois cent mil mm. nga yëkkati cent mille jox ko ah, ngeen def ñetti xaaj ngeen def ñetti xaaj mu nekk mu daara ba mm-hmm. dana fonk uh, oto bi waaw dana fonk liggéey bi dëgg dana ko yaxanal mm-hmm. moom it mu doon ku wóor koo xam ne mm-hmm. li muy daw da koy indi dëgg la lu mu am indil la lu mu am indil la waaw du du du aj këram dara du jàddal lenn masha allah lu mu am indil la gis nga loolu bu amoon bu yii amee chauffeur bi dana am lu mu doon denc mën naa dem di ca domp yi di dunde waaye fi ne koo xam ne kii saa boo ko bettoon ne ko abal ma vingt mille wallaay bu oto bi demul dellusi si du la mën a abal vingt mille tey waaw bu bëggee gaare ñetti weer de bëggee <laughs> ah, dana soogi <laughs> ñaagaan gaare ñetti weer dana soogi ñaagaan soogi koo xam ne ki léeg-léeg mu jóge fii sëñ Mbàkke hmm. dem cel ma xam mbàkkol hmm. bu dellu see <laughs> ca lay door a jël dix mille wala quinze mille yónnee këram yónnee këram laa ilaha illallah kooku boo ko bëggee loolu ñaari weer jàpp ñetti weer hmm. Euh, dana suugi ñaaga ci moom mm-hmm. dana xaw a jafe mm-hmm. euh, méccem transport ci penc mi euh, xam naa lu jara waxtaane la mm-hmm. congaan mooy dégg dëgg la transport Mbàkke oto yëpp waruñu koo def mënuñu koo defit dëgg la transport mm. oto yëpp mënuñu koo def waruñu koo def mm. dafa am oto yu ko moom dafa am oto yoo xam ne oto bi mm. daa war a am wér-gi-yaram waaw bañ a màggat maanaam oto bi day doon gone. Mhm. am wér gu yaram. Mhm. <laughs> am wér gu yaram mooy bañ am ay paan. am wér am wér gu mooy day dem fu ñuy visiter oto ya te dem na. waaw. <laughs> day def def visite technique te oto bi ci boppam dem. très bien dem dem docteur ya seet ko <laughs> xam wér gi yaram mu wutal ko koy wér gu yaram. est-ce que. léeg-léeg romb la oto boo xam ne bii oto bii moom wërti yëpp aw nit waaw dëgg dëgg da nga naan kii moom wax di yàlla fu mu jëlee fu mu fu mu jëlee këyit yoone wér na ba war a daw jaaxal na jeex na léegi loolu bu ñu ko dindi woon ñi war te def transport génn ci transport bi ñi ko war a def ne ci ku ci na am ci dara dëgg waaye bu ñu ko bàyyee rek mu mel ni tulleeg màlle mm. léegi tey nit dana ko def ba xëy génn àdduna du ci am dara du ci am dara mm-hmm. loolu nag xam naa jar na cee rek ci waa ci affaire bi dëgg la moom kay lu mat a sérieux la nag waaw waaw waaw moom donte mën naa xaw a metti waaye mu metti te jur ay ak dal ginnaaw bi baax na bu dee ci ni ñu baal seen métier taxi yi waaw léeg-léeg nga arti benn taxi mm. boo duggee booy toog rek billaay xam ne lii moom yàkkal ko soos wallaay wallaay ndeysaan waaye fi ne tabarkàlla fi ne bu la neexoon dem càlle oto mbay faati bi nga indi koy dawal <laughs> naa def de waaw <laughs> ko ci penc bi dawal lu waay yor rek man ko man ko yore dawal mhm. waaw loolu daal wax dëgg yàlla ci mbirum mbirum transport moom mhm. boo demee ci ñi koy def dangay am oto bu baax yow dem nga màkkatal mu karama dëgg la gis nga kaar yi lay jëlee Madina yóbbu la ma màkk mhm. yi lay jëlee màkk yóbbu la arafa yi lay jëlee arafa yóbbu la munaag musdalifa ak yooyu gis nga nañ mel képp koo xam ne kii aj makk gi des na ñetti weer wala ñeent dafa am lu ñu tuddee tasriix mooy technicien yi ñoo ñëw ci sa oto bi taal ko waaw dawal ko mhm. seet kilim bi mhm. seet frein yi seet yëpp bi na bindal aw këyit ne la am nga tasriix allahu su yooyu amul doo am tasriix te ba amul tasriix ba dee bu la jàppee bu muy tuut mhm. da nga yàgg ndungu siin ñoom nu la ñuy def ñun fi nekk ni bu màggal jotee wala gàmm oto bu waaye am rek teg ci dal bi si waat waaw parce que euh, kii la événement la ak mbirum profito fekk na du loolu wallaahi donc transport sëñ Mbacke li nga ci wax mhm. mooy dañ ko war a waxtaane mhm. suñu gare routière yii ñu xam ne ay gare routière lañu mhm. du dëgg ñi nga xam ne ñooy dem ci tukki dama ko ñëw ñu xam loolu ba demee jël sa billet toog place bu baax dem fa ngay dem bu ñibbisi jotee nga ñibbisi wallaahi jamono ñooy. dëgg la jërëjëf ci si laaj ba. macha allah am na solo oustaz am na solo lool euh, moom moomu waaye nag fi mu ne ubbi nañ ko oustaz ni ma ko waxee yolomal nañ. Mhm. tawat ji dafa jeex. wala day gan guñ fas yéenee dëkkal moo tax ñu fas yéenee dëkkee ak moom nii ba yi jëloon yépp ne daa cee baaxut ñu ne léegi baax na ci wala dañ koy def te ànd ak moom. ah président di nee na gan gu nanguute ñibbi moom. Euh. fexe nooy dëkk moom rek. wallaay waaye nag loolu. loolu loolu loolu yombut. ginnaaw fi nekk di toll nañ ci ne li génn àdduna mat na ñun fukk ak juróom te fukk ak juróom ñaar ña nga ca waaw ay jafe-jafe mm. bët bu set nga dégg junne juróomi téeméer kaa mm-hmm. bees yi téeméer bu manqué daanaka ñettale doon wala ñeent wallaay lu mel noonu kat su fekkee dañu ne kon nag nañ sa mboxloo ñun ñëpp koy dem ku ne war ngaa bàyyi xel loolu mm-hmm. léegi koo ci xam ne da ngay tukki booy dem ca gaaru ceer baa ñum sin yooyu nga yëg ne masque bi farata la. nga bañ koo daw. waaw am déet. Mhm. ba ma ca barab ya lu mu xat xat xat. bul dugg ca gaar ba te bul dugg ci oto ba te raxasuwoo te jël. Mhm. fexe ba yow tam boo duggee ci oto bi nit dugg fi. Mhm. nga ngeen dandante. lu ko may mu jox la maa nga jox ko. waaw loolu moom jar naa jël ay matukaay nag lool. waaw waaw. ñu xam ne ñu yëgal nit ñi ne dañoo dañoo mënta toogati. waaw moo tax ñu bàyyi ñuy dem ak ñëw waaye war nañoo moytu. jeex na waaw. waaye suñ fekkee suñu bàyyi rek mbo mboya ngaan. Mm. boo moytuwul léegi tey euh, ministre bi. Mm. sampu xelam. Mm-hmm. waaw loolu nag yàlla buñ ci àgg. loolu Ousmane Sonko naan yàlla buñ càgg daal waaye waaye yàlla buñ càgg wallaay waaw jërëjëf ci laaj masha Allah muy lu am solo oustaz kon nag fi mu ne fas yéenee dund ak jàngoro ji rek rek waaw lépp delluwaat fa mu nekkoon jëm koo gérer ci jëm koo gérer rek ginnaaw moom jàpp nañ ne ku raxasu mën mën nga ca mucc mm. Euh, ku sal masque mën nga caa mucc nangam mhm. nangam añu jéem a def yooyu ba xam rek mhm. la des nag te ba ma ci tawakkal lay fu waxas bu wallaay mhm. macha allah muy lu am solo oustaz léegi jàkke yi nag laa xamul ba xam moom xanaa léegi eh, ñoom itam eh, loo xalaat ci seen mbir man ndax pour man jàkk yi ubbi ndax bari na yoo xam ne ubbeeguñ ba léegi ah bari na yu ma xam yoo xamante ne ba na ngeen julleeguñu woon àjjuma julleeguñu woon yenn jotaay yu baree bari ci julli yi defaguñ ko woon ah, ah, jot na sëkk nañu ubbi ñu ubbi wut. Mm. jot na sëkk ñu ubbi. Mm-hmm. te comme ubbi nañu transport bi. Mm-hmm. Hmm? waaw ubbi nañu couvre-feu bi yokkati nañ ko. Mm-hmm. kon nag léegi jàkka yeeg jumaa yi kay war nañu ko mën war nañu mën a ubbi. dëgg dëgg waaw war nañu mën yi ci tëjoon ba léegi. war nañu mën a ubbi. fexe ñoom itam taxaw seen taxawaay comme ñëpp rek. wallaay ginnaaw oto yeeg marché ñoom seen balaa kenn dugg day raxasu. Mm. ñu fexe ba jàkk ji balaa kenn dugg raxasu rek. waaw raxasu wala mu jël seen baa ngi ko yooyu def la muy war a def. waaw ñu indi sa jaal bopp. téye xale yi ci kër yi Mhm. loolu loolu bu ñu ko defee mën naa mën naa nekk incha allah. wallaay ah. macha allah am na solo alhamdulilah jërëjëf oustaz ci taxawaay boobu ak itam noonu nga xam ne jàngate nga ko yëf yi mhm. nga xam ne ñi ngi tàmbali di ko jege si damay génn réew mi door a dellu siwaat ci biir réew mi ak mhm. actualité yi nga xam ne moo fi am manifestation de manifesté ci boppam dafa xew ci àdduna bi yëpp boo xoolee fan yi ndax fële ci réewum Amérique dafa am daal koo xamante ne dañ ko faa faat muy nit ku ñuul euh, waaja daa sukk muy xëj di xëj ba sedd guyu loola tax nag nit ñu ñuul ñëpp génnandoo ci àdduna bi jàpp ne loola ak racisme la ak xeebaate ak yi nga xam ne moo ko moo ci aju mm-hmm. nooy jàngate loolu ndeysaan suñ mbàkke ah. danga naan rayati waaw rayati mm-hmm. xam nga Barack Obama mm. fam waajuram moom a sa bokk ko ab blanc mm. mu noppee waaw moom mi bokk ak blanc bi am na ca kaso bay fan noir bi kon balaan bi bokk ak noir bi ñu bokk taabal di lekk mm. yow mi ko def am nga ci kaso bi ay fan mm-hmm. donc loolu mooy li doon xew ci Afrique du Sud ñu ko tuddee apartheid mm-hmm. loolu moo xew réew moo xam ne mooy Amérique nga xam ne noir yi daanaka seen deret moo samp pénc ma mm-hmm. ak seeni doole doon njaxas moo xam ne fu ne lañu jóge ñëw fa nga am nga am raciste gu toll ni mën a fekk nit ni yow mm-hmm. ngay di ko rey ci bëccëg ndara kàmm ñëpp yi seetaan nga sukk ci aw loosam ba mu seddu guy mm. loolu ku nit du ko def ah doy waaye waxoon naa la benn bis mm-hmm. américain ba doon rendi africain ba mu màtt mm. ko <laughs> mu ne ko yéen civilisé wu leen ñun americain ku ñuy rendi waroo màtt. c'est waroo màtt waaw ñi lay rendi ngay màtte ñàkk civilisé. ñàkk civilisé waaye ndaw. waaye seen manifestation bi fa xew. musu faa xew. Mhm. tàng na jër. Mhm. waaw. Mhm. musu faa xew. dëgg la ndax défini dafa ñaaw. waaye nag ba tey nag. ndax am na fa ba tey. waaw déet ci diggante bi ñuy um koor ak léegi kay. daanaka man nga ne daanaka ñett ak ñeent. effectivement ndax. xale ba brûlé na feu feu mm-hmm. nañ ko fa def dégg ko wallaay ca marché ba dañ fa def benn xale ba dégg ko mm-hmm. kii tam ñu def ko noonu mm-hmm. donc loolu daf war a denc ci Afrique moom kay bi ma déggee sax ni nga koy waxee nii ci ngay fàttaliku ne lu baree bari dangay dégg doomi Sénégal yoo xam ne ñu ngi leen di ci bitim réew waaye day mel ne du mujj fenn daanaka boo xasee jot information bi naqarlu ko mu jeex doo dégg lu ci état def doo dégg lu ci. parce que dañoo dañoo am seen complexe. waaw léegi nag euh, bii moom moom dafa doon boo xamante ne rek dafa jékki-jékki doon benn tës joo xamante ne yéeme na lool. waaw waaye sooy sooy sooy def lu mel nii. Hmm. da nga la masalaa laa làkke hmm, hmm. da nga mas a tuur deret ko xam ne kenn tuur deret dëgg la. waaye sunu réew yi ci àdduna si yëpp. daanaka dañoo complexé. Mm-hmm. africain yi. Mm-hmm. ndax américain yi ndax li ma wax sànq rek mooy di leen di mu màtt la. waaye mm. waaye mbàkk ah. yow mu am pexe matt la nga ne kii daal civilisé wul. <laughs> moom daal bu civilisé dinaan ceel. bu civilisé mooy bu américain di rendi da nga naan ceel. waaye doo fi nekk di mattaate. mu rendi la ba noppi. ndeysaan teg la fële. waaye doo fi nekk di ko matt ndax da ngaa si da ngaa civilisé wul. jàppee africain yi yëpp nag daanaka. Mm-hmm. moo xam président ya mm-hmm. moo xam ministre ya moo xam nanga mekk nangam mm-hmm. daanaka nun adduna yëpp lu leen jàppe tey fi ne bu ñu rayee ci adduna si benn américain yaay wala ñu sanal ko adduna tukki dëgg la te réew mu ñu nekk seenu seenum réew waaw ñoom kay boo ñëwee di Alassane ñëw di ñaan visa da ngay jox xaalis bu bari ñu xool la ba mu neex la ah. ñu tàmp ne la <laughs> ne la si ne la ne la good morning waaw mënoo mënoo am suñu visa bokk <laughs> bàyyi la nga ñibbi xaay boobu nga xam ne moom la ñuy def mën nañ kee defar seen ambassade ba mu dàq ambassade yi nga xam ne moo nekk ci dëkk wallaay tax bët bu set ñu versé leen quatre-vingt-cinq mille mm-hmm. cent mille nangam cent mille nangam nangam yi leen koy versé mat na ay téeméeri téeméer la doon te bu ñu la ne la jox xamu foo ko jooye ji da ko ñibbi sa kër bëri ba beneen yoon mm-hmm. waaw xam nga man dem naa fa ñaari yoon bu ci nekk ne la ma yor joxe xool ba si pour rek bañ waaw waaw ñaari yoon ah ñoom de kiimaan lañ ah walaay ndeysaan ah loolu de kii wàll <laughs> am na solo oustaz muy lu yéeme xam naa ñoom loolu ci seenu doxalin ci wàllu mel na ñoo gën ci àdduna bi xam naa li Amérique bu ñu koy bindi di tàmbalee a moo tax gannaaw a daa féeti chiffre yëpp kaw ah, mu mel ne ñoom eh, am na sax eh, aéroport yoo xam ne boo yoree passeport Amérique doo rang <laughs> moom bu dee naar yi boo demee <laughs> yow xam nga ci dara bu ne boo ne américa nga ne waaw dañuy wax mabrouk commencé daal di yuuxu ca kaw ñoom bég lool xam naa ne bàyyi fa seen làkk di làkk seen waaw bàyyi di làkk anglais bi ba kontaan doy na waar de mënu feewee <laughs> doy na waar de ah complexe ñoom lañu am moo taxit nu nuy rey comme nii rek comme ay weñ comme ay weñ <laughs> xam nga sukk ci loolu su nit ba mu sedd guy hmm. ah loolu loolu ah, métti na de dara jëru ko dara jëru ko wallaay dara jëru ko te kat ñaa ngi seetaan hmm. nit ñaa moom gendarme ñu ngi taxaw di seetaan dëgg la man ba nga ni dégg guma sax lu ñu def police bi ci ay daan waaw am na ci ko xam ne kii ab ab xaj lañ ko boole matt ci loxo bi waaw ñu bës est-ce que ce loolu kenn mësu koo gis. wallaay dégg gu mën a kenn ku réactionné ne c'est pas normal. Mhm. waaw macha allah. mbaa normal na. wallaay doy na waa de moom de ak lu ci mën de am xam naa ne suñu réew yi war nañ cee jànge eh, maanaam gën a protéger doomi réew mi ci biir réew mi ak bitim réew yëpp. ba seen deret daal ñu yëg ne deret ju foor la dereti nit la ne nit ñi. dëgg la ndax fi mu ne maanaam ki nga xam ne moom lañ jogg ci loosam ba mu ba mu faatu noonu liggéey bi mu doon liggéey xëy na du liggéeyu tànneef buñ mën a wax ci kaw. Mhm. maanaam nit ñi gisatuñ loolu ah. mais geste bi lañ ñaawlu mhm. ba jàpp naa ne loolu war naa doon benn alerte bu rëy rëy ci àdduna si bañ bañ a xeeb kenn ndax couleur am wala fi mu bokk wala waasoom ba di ko néewal loolu loolu loolu loolu mooy liñ ci war a jànge mhm. te daa war am nag mhm. mooy nit en tant que nit nit la ndax wala xadd karam naa bani aadama la ci yàlla teg wala waa tegu ci wala xadd karam naa américa dëgg la waaw tegu ci tegu ci loolu bani aadama la wax ak fu mu mën a bokk ak fu mu a bokk macha allah léegi nag ñu seetaan def loolu ki def loolu war nañu ko teg ay sanction wala ñu fay ñu fayal ko. Mhm. Mhm. ñu rey ko. waaw boo reyee. Mhm. ñu rey la ndax loola ngay dox ci penc moom waaw waa ji de bu ñu ko defoon noonu àdduna si dalaat. ñu dellu ndax manifestation am na ci Amérique am na sax yeneen réew yu génn. manifester ko du Amérique yàq nañ fa lu bëree bëree bëri. yàq ci Amérique yàq nañ fa lu bëri. waaw mais dëgg la est-ce que sax gaañu ñu fa ay policiers. wallaay wallaay yàq nañ fa lu bari yàq fa lu bari yàlla dimbali macha allah ba ñu yëg ne àdduna si daal hmm. ba ni aadamaa ko moom wala xam ne karam naa ba ni aadam ba hmm. xamal na am fil bari wal bax dëgg la macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf ma dellu si waat ci biir réew mi eh, jamono ji bu ñu fi tollee dañuy waajal nawet hmm. nekk ci waajtaayu ruuj nekk ci waajtaayu faru baykat yi nekk di waajal tool yi te taxut yëf yi ndi fa lool ku xam la xew ci bitti fi mu ne da nga xam ne daan na fa gën a neex ci waxtu wi euh, te itam jiwu it naka jekk dañ daan wax ne daan na génn ay milliards ngay dégg état di ko def ci jiwu waaye daa mel ne baykati bureau yi li ci ëpp <laughs> du dem ca baykati tool yi ak yi nga xam ne moo ci aju nooy jàngate tolluwaayu jamono bii ak nawet ji nga nawet bi nga xam ne moom lañ dëgmal. jërëjëf xam nga su fekkee ne. Hmm. mën naa nekk mën naa nekk Dakar. Hmm. Alassane Diouf nekk Dakar ñu génne jiwu ca cilmaxa mbàkkol hmm. mu sañ am jiwu ah. ñu génnal ko jiwam mu jaay ko te toog Dakar ci hmm. waa ji ngi am hmm. génn nga sa jiwu jaay nga ko tegoo ca bët waaw looloo ngi am baykat cim réew si na imaam ali daan wax ne li feeg ñeexuñu ko réew mi doxagut dëgg la ab baykat li feeg ñëwuñu ko. Hmm. réew ma doxagul. wallaay jiw nag bokkut ak gerte encore. Hmm. jiw ak gerte bokkut. déedéet dëgg la. nit kii bay dañ ko war a wax jiw waaye waruñ ko jox gerte. Hmm. lu wutale jiw ak gerte. gerte mooy lépp loo xam ne lii doom bi dafa nekk ñaar doom ñu mën di ko xool di yëy loolu gerte la jiw nag dañ koy tànn. gis nga jamonoy Senghor. dañ daan dem dëkk bu ñuy wax dix-neuf. wala buleel. waaw buleel waaw. li tax ñu tànn buleel mooy penc moomu ci saalum dafa nangu gerte façon nangu boo xam ne bii boo xasee génn foofu mënatoo ko am fa la sëriñ Cheikh defoon toolam ya dégg nga mhm. bu ko defee dañ daan sàmm gerte googu noonu bu ñëwee loolu lañ daan jël def ko jiw bu ñu ne léegi dañoo bëgg élevage ak ñoom seen yooyu ñu dem daara jolof mhm. parce que it na fa jur gëmel amul ci benn mel ñu tànnoon ñaari barab yooyu donc li jiwu daan jóg foofu lay jóge léegi nag li ci ëpp léeg-léeg gerte la ñuy joxe gerte gi ñu joxe am na ko sañ a am te du béykat wala béykatu dimanche la wala béykatu bureau te sañ naa am loo xam ne sañ mbàkk ci li mii béy mënu ko am mm. ah dëgg la sañ am ay tracteur mm-hmm. sañ am ay ay ay ay charrette mm-hmm. machine bu ñu joxe lépp moom sañ na ko am lu tax moo ëpp ay pexe lañ sàll bu la nekk càlli kenn su waaw su boobaa nag léegi mbirum mbay mbirum mbay mën nañoo bay di wax ay milliards lu ñu dugg ca te duñ dem mm-hmm. parce que yan cay wax ak ñoom seen yooyu bu fekkee nekku ci fu ñu jëm mm-hmm. waaw lu la yëfi te xam nga gerte moom sañ sëñ Mbàkke sakkanut mm. sañ Fall daana wax ne <laughs> ku am ñeenti hectare mm. ñett yëpp bay ko dugub mm. benn ba gerte du lu la jël du la jël waaye boo bëgg ñeent yëpp nga def ko gerte buñ ko jëndul nga am problème buñ ko jëndewul prix bu baax nga am problème bu ko chinois jëndee nga am problème bu rek tabarkal la donc bay mbay moom sëñ Bàkke rawatina ñu toll fii nga xam ne mooy ruuj mois de juin ñëw na mois de juin juillet août septembre trois mois waaw dëgg la deux mois septembre daal ñëw mhm. ci septembre ak poos wax seet ak poosa <laughs> surtout mbar ak mbool ndeysaan wax set fu mu mës a jotee. Hmm. bi yi commencé poosé ka palpal. Hmm. sëtu mbar fu mu fu mu jotee. Hmm. te sëtu mbar le 14 septembre lañ wax. waaw ne ci lay ci lay dugg. waaw te daan fekk nawet bi maanaam ñu daal di tàmbalee mën a xéewlu ci li ñu bay bu ngoog léegi fi ne ah. ñiy bay ñi ngi ñi ci ëpp nee na ñu ngi Dakar dem dëgg la dëgg la moom koy fi ne bu ñu lijjantee ba dem sax loo bay moom daal di nekkaat beneen yitte yeneen yitte ndax ñu baree bare ay góorgóorlu lañu woon yoo ci noor bi lañ daan liggéey lu ñu mën a dunde ci nawet bi waaw su fekkee booba léegi nag yaa ngi toog amuloo loo demee ñetti weer boo demee boo roje ba noppi loo loo cee que xanaa kon loolu état war na cee bàyyi xel moom itam ci muy bàyyi waat xel yaakaar naa ndax dégg naa milliards yu mu tuddaat mu ñeel transport bi mu mel ni am na geneen gendeeku goo xam ne amaat nañ ko ci xam naa baykat yi kon ci ñi war a bokk ci loolu lañ bokk ah oh, oh, jar nañoo dimbal jar nañoo dimbale waaye suñu mbàkkee hmm. baykat ku koy dimbale doo ko dimbale ci jàppal ci li jàppal ci li hmm. noo koy dimbale da koy dimbale ci lim bay ñu jënd ko waaw loolu de fexe bañ bay ba ñuy bay loo xam ne des na ko mën a jaay waaw surtout nañ béy kaani waaw man na oustaz xam naa ci mbay mii ngay wax mbayum ndawen mi waaw moom dong mooy liggéey boo xam ne waa ji da koy liggéey ba noppi ñu fixeel ko li ñu koy jënde mbayum gerte xanaa waaw ne ko yow li nga bay ñun nangam lañ koy jënde tubaab bi ñu doon bayloo gerte waaw mais xam nga moom jamono ji mu daan fixé nangam la koy daan na joxe jiwu daan na joxe euh, maanaam engrais daan na joxewaat ay restourno ni ngeen ko daan yu baree bari da ko daan def ba pare door a fixé prix waaw léegi dal léegi comme niñ ko doon ci moom noona ñu doon waale loolu <laughs> kii waan la yàlla ñu yàlla yërëm. mënu fi yàlla ñu yàlla yërëm. wallaay wallaay moo di bay ba noppi ñu la nangam lañ koy jëndee. Mm. ngay tëdd dal ndax kontaan. seet ci gàtt la am. billaahi ah. ba demee ci ñoom ma yoro mm. kaaneeg sableeg ñoom seen yooyu ñuy bay. billaahi ñu ko bay xanaa ñuy tëral seen bopp prix. wala mm. nga ñëw ñaata. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye bu dee gerte moom da ngay bay ba noppi ñu tëral la ko ne la deux cent lañ koy jëndee deux cent dix nga kontaan. <laughs> te doo sa jot. Ah. te doo ci jot. kenn mosu ko ndax mbayum gerte mi daañu fexe ba wut ci benn intermédiaire. Mhm. te yonte doon utruku ibadallahi mhm. yursaqu baaduhum al baad. wallaay du dëgg. wallaay léegi nga bay gerte ba noppi ñu daal di wut xaalis jox ko cuun. Mhm. nekk cuun mi opérateur la. cuun daal di jël xaaj bi ñu ko jox muy euh, cinquante million mu jël deux euh, deux cent cinquante ya. wala boog mu jël vingt cinq ya. dem jox ko nit ne ko jëndal ma gerte. yow bi ngay jënd deux cent deux cent dix moom muy jënd cent quinze. Mhm. wala cent cinquante. léegi ngay jënd fee mu jënd fii moom bi muy jënd mu tudd mbappat. Mhm. su paree ñëw juróogal la loola kilo bu nekk ñaata nga ci am. ñaar fukki dërëm wallaay seetal lool. donc yooyu mu ngi xew ci pénc bi. dëgg la béykat moom moo ci gën a sonn. la moom mi bay. opérateur beeg ñi nga xam ne ñoo jënd si gerte gi li ñu am ci gerte moom li ñu ci am moom mënu ko ci am. Mhm. ndeysaan moom mënu ko ci am. tey yàlla yàlla yërëm. amiin yaa rabbal waaw yàlla nu yàlla yërëm. amiin yaa rabbal parce que loolu daal moom ci ci ci yi war a seetaat la agricole. métti na lool waaw métti na lool. seetaat ko baax a baax. Euh, jubbanti ko ba yi ci nekk yëpp bañ ci nekk tey mhm. di dunde ñaq baykat moom. Mhm. ku xàmmee te xam du ko def. déedéet sonn nañ réew mu ah, xam te xàmmee du ko def. ndeysaan. suñ mbàkke nett loolu naa leen suñu pêcheur ba bàyyi alaaj màggat jéy ndeysaan keroog bañ bàyyi suñu gerte gi yóbbu ko mbar wallaay pêcheur ba teg gerte gi mu ne ko kaay xool mu ne ko lu may xool mu ne ko li may pêche mu ne ko da koo jara hmm. waa ji ne ko ah mu ne ko ah yaa ngi ni teg ko hmm. maag sama gone yi ñoo ko bay te yomal xeam da nga ko tegaat yow kay wax ma ñaata la rek hmm. mu jeex. ci at moom la waaj a bàyyi bàyyi. waaw parce que peeteer yi xawoon naa doy waar. te te te macha allah. <laughs> amin yaa rabbal aalamiin am na solo Oustaz jërëjëf xam naa sax ci njeexitalu actualité bi laa jëm. waaye yenn ci xew-xew yoo xam ne xew na waaye dafa jëm ci ay nit. te euh, léeg-léeg wax ci nit xaw a jafe mhm. waaye actualité bee ko laaj mhm. euh, député ba li nga xamante ne mooy Bougazelli mhm. déggoon nga fii jamono jëlee yoon tegoon ko loxo ci xaalis boo xam ne du xaalisu diggantaan njaay euh, xaalisu fowukaay la nee nañ daal dañ koo bàyyi bàyyi néggandiku nooy jàngatee bàyyi néggandikoom googu waaw ñu de bi ñu déggee ak gëstu yeeg yooyu doona wax ne dafa wéradi hmm. bu dee lu wér nag <laughs> bu dee lu wér waaw bu dee lu wér moom warees na ko mën a bàyyi bàyyi ndégg ni ko bu wéree dellu si bu dellu wér mm-hmm. bu wérul nag ah leneen affaire la moom mm-hmm. waaw mm-hmm. ndax am na yoo xam ne bu ko ñu defee ci pénc mi euh, du du du moom ci boppam mais pénc mi la def dara dëgg la ku def penc mi dara nag war nañu leen yaa def penc mi dara. waaw parce itam. bu yombee noonu du doon ak yolomal gu maanaam du doon message bu baax ci askan wi. c'est ça waaw ni ñu moom bu fekkee ak wéradi la. Mhm. moom leela mhm. bu fekkee du wéradi nag. Mhm. ñun ñëpp a daa mel ne yooyu dafa xaw a xew de ndax itam xëy na sax bi ma koy comparer comparable muy lu mel ne président Tchad ba léegi di Hissène Habré. moom itam euh, actualité boobu daf maa rëccoon ci xibaaru daara yële weesu. moom it ba <laughs> ba delluwaat ci yëf yi. ci ci ci benn ñoom dañu ne. waaw. ginnaaw feebar bi dafa am. waaw te fa mu nekk ragal nañ ko fa. waaw nan ko delloo foo xam ne fii mën na faa mucc. Ah bu ñu noppee feebar bi ñu delloo si ko. moom ma yaakaar ne pavillon spécial la nekkoon ak. ah yooyu eh, eh. maanaam oustaz li ngay wax ci lu waaye tubaab léeg mu jaaxal ma nag. <laughs> léegi moom moom daal dañuy coow ci menn mbir ba mu yàgg bu ñu ci bëggee génn day mel ni du woon ñoom rek. jaax na jaax na. ah ñun ñun ñun de xamuñu li xew. bis ba mokkale lu waaye tubaab. waaw da ngay noppalu ba nga xam ne parce que nun la <laughs> ñu de xamuñu li xew de xam naa. déedéet waaw ah, li xew de xamuñ ko de <laughs> xamuñ ko de oustaz. waaw looy tubaab rek yàlla na yàlla dimbali. wallaay amin yaa rabbal alamin mm-hmm. eh, ci wàllu woowu itam askan wi léeg-léeg ñu am yuñ ci wax ndax jamono jiñ ñee dañuy wut ay ndimbal. ba doon dajalew ci état d'urgence bi lu man mille milliards ak yi nga xam ne moo ci aju. Mm-hmm. ànd ak yooyu yëpp nee nañ président mi ngi fal ba léegi. ay poste yoo xam ne daal xaw naa lëndëm ci seen i bopp. Eh, déggoon nañ fi soxna Sële di soxna Aminata taal mhm. ñu def ko président honoré bu fële ca conseil économique social gëm jiite woon. Mhm. daal di tudd salaire bu duun ak ay yeneen yoo xam ne moom lay àndal yàlla na ko jik waaye yooyu yëpp daal oustaz askan wi am nañ gisin woo xam ne am nañ ko ci. waaw askan wi te maa yow ci lañ bokk. Mhm. askan wi te maa yow di gis nga mbirum pénc. Euh, saxaaba yeeg ñi leen wuutu woon dañ ci daan jàngale lu rëy rëy rëy wallaahi nettali naa la Omar Abdul Aziz Kara ba bañ ko falee ñu def réunion laaj ko looy dunde mu woo jabar ji ci jabar ji naa ah, xam naa bu ñu dee am deux mille cinq cent de mën nañ ci dund par bés waaw ñu calculer at mi ñaata la jox ko jabar ji bët bu set mu denc cinq uh-huh. cent di di dunde uh-huh. bët bu set mu denc cinq cent mu ko defee mi weer mi at daa di woo jëkk ji ne ko ah, man kat dama dajal naa fi dara ma bëggoon ñu woo ministre bi Saliou Diaw uh-huh. mu defal ma ab lal ak nangam nangam xam nga lu ko jëkkër ji wax foo jëlee xaalis waaw ana lakki hada yaa Mariam ana lakki hada foo jëlee lii foo jëlee lii waaw cëy waaw ñun daal nekk ñoo nekk euh, ñoo yor état beeg réew mi yëpp. waaye desal fi loo mën a defaree lal ak armoire. waaw foo ko jëlee. foo ko jëlee waaw ah, mu ne ko. Hmm. dama doon dépense wu deux mille francs. Hmm. di denc cinq cent. moom di wax ko dara. waaw dafa woote réunion. Hmm. dafa woote réunion. waaw moom président. waaw. ñi ñi nga xam ne ñoo yor wàllu contrôle yeeg ñoom seen yooyu. waaw. mun na leen ñëw leen. Mhm. cour cour des comptes. waaw <laughs> cour des ñëw leen. Mhm. ñu ñëw mu ne leen. yéen kat bi ñu réunion fii dañoo waxoon ne deux mille cinq cent moo ñu doy. Mhm. ndeke ëpp na. waaw ndeke li ngeen ma doon jox daa ëpp. daa ëpp léegi nag nguus gee nee tege. cent yi nga xam ne moo doon des. moom la ci soxoon si dajale. yóbbal na ko ci kees bi. allahu akbar. ay waay ñun kañ la ñu amati loolu waay. ñun balañ ko am dana yàgg ndax ñi daara ji yar. lañ defee ne waruñoo jege ab état. billaahi ñoom daal ñaan yi lañ féete woo gunge. léegi nag ñu yar la beneen yar boo xam ne bii dangay ñeme xaalis. Mm-hmm. Mm-hmm. dangay bëgg xaalis. dangay am fit wi. Mm-hmm. léegi nag suy doxee noonu. Mm. suy doxee noonu. ñu ci bitti fokk ñu ne déedéet dëgg la. dëgg la de oustaz. ci biti. Hmm. ñu ne déedéet. parce que itam fu jamono ji toll léeg-léeg am na yoo xam ne du xaj ci bopp sénégalais yi xam naa ngir ñu dugal ko ci moom danañ ko ñoox ba tàyyi. looloo yëfi nag. ndax bu dee dañ ne fal nañ jiw nangam nangam lay fayeeku nangam nangam ñu ne lu muy def mu mel ne daanaka teraanga la joo xam dañ la koo dogal rek muy sa wàll dafa xaw a metti yàlla na yàlla dimbali amiin yaa rabbal alamin <laughs> neexut euh, jàll lool waaye moom noonu la bindoo euh, euh, noonu itam la amee oustaz ci transhumance bi ñu doon wax ci wàllu politique daa mel ne ba léegi jeexagut ndax mm. démb ci conseil des ministres damay xool léegi communiqué bi gis ñaar ñoo xamante ne PDS lañ leen xamee woon Moussa Sy maire Parcelles ak Abdou Fall nekkoon ministre ñoom ñaar ñëpp fal nañ leen kenn ki ñu ne mooy PCA bu port kenn ki bu APEX nooy jàngate maanaam daal ñun jamono ji ñuy coow ci bi naan ceeb bi àgg na ak a séddu ñu ngay séddu yàlla yàlla yàlla dimbali leen <laughs> amin te fekk muy lu ñu àttan waaye daal xam naa ne <laughs> xam naa ne ñun waa daara daal mm. bu ñu sañoon <laughs> xibaar la de tam waaw ah kay ñu mm-hmm. gestu daara ji mm. defal ñu ay daara mm-hmm. ah mm-hmm. bit yooyu nga xam ne quarante pour cent la mm. di jëm ci njàng mi waaw mu jëm si ñun ndax ay jàngkat la waaw ñu fexe ba mu àgg ñu fexe ba mu àgg te daara jot ci wàllam li nga xam ne tam ñu ngi koy defal nit ñu dompal ci daara ji jox waa daara ji ndax ñol ñol ji wàññeeku mhm. loolu daal moo ci gënoon waaye fal nañ diw fal nañ diw nangam rekk am te mhm. itam daal mu gënoon rek mhm. gis nga mbirum politique dafa aajowoo principe mooy duut xaalis dëgg la waaye lii laa gëm su faloo moom laay doxal su ma faluwut dox ci ni may dox dëgg la loolu ma xewoon démb nga xam ne principe bi nit ki xas jël kenn du ko ca mën a dindi. waaye du yow du yow du yow bu yàgg mu xëy na la yow ah. waaw ah. loolu de Shuayb bu ne nag kenn mënu koy def loolu. kenn daa xamul lu muy niru kat. yonent Yàlla Shuayb. waaw wa maa uridu an an uxaalifakum ilaa maa anhaakum ilaa maa anhaakum alayhi in uridu. ila al islaaha ma tataatu wa maa tawfiiqi illaa billaah dana acci la ñu julli. <laughs> wa shukran macha allah allahu akbar am na solo oustaz jërëjëf euh, moom day tegale bi daa euh, du neex a jooyal ndax daa am yu ci war a bokk te bokkuñ ci moo tax léeg-léeg mu tegaloo day xaw a jafe lool <laughs> euh, sa mbokk ma la di Sidi Ba di yëngatu ci wàllu mbay mi xam naa ci ñi ko jiite ci réew mi la bokk sax mi ngi bind message di rafetlu wala da koo wax te du ma ko mën a déglu waaye li ñu doon wax ci mbay meeg yooyu xam naa soxal na ko lool ba mu dugal ci ay kàddu alhamdulilah maa ngi tiim ay audio nii noo koy bëggee hmm. mbokk mi tam ma nga fële ca nee na dafa bëggoon euh, sëñ Mbàkke ji dugal euh, xibaari daara ji. waaw mu ne nag mu di ko dugal ci benn xaw nu ma ci waxee. seen uh-huh. yooyu waaw. waaw d' après mu gën koo leeral rek. ñu xool incha allah incha na solo oustaz xam naa sax foofu laay taxawlu ci xibaari daara ji. Mm-hmm. daal di jéem a jukki laaj yi nga xam ne moom la mbokk yi bind ndax xaw naa bari te bi di albidaayatu arobas yahoo point f. jërëjëf def ci Almadies FM seen rajo kon bi xayran laaj yi ñuy jukki mbokk yi ko yónnee ñu ngi ko jaarale ci email bi nga xam ne mooy albidaayatu Seydou arobas yahoo point fr. te wax leen ne fekk nañ fa téeméer yu teg nangam. téeméer yu teg jëlal leen ci ñaar fukk. macha allah ñu jëlal leen ci ñaar fukk waaye lu jiw a jeexut jógu fa. incha allah oustaz dana ko coppati ndànk-ndànk di ko indi. Mhm. ñu leen koy jàllaleel. incha allah mbokk mi ñu njëkk a jukki ab laajam mooy Alioune Dia nekk fële ca Rufisque. Mhm. laaji tey yi moo ci jiitu Alioune nee na oustaz euh, maa ngi leen di siyaar. lu mhm. bari nee daal lan la lislaam wax ci jullit boo xam ne lu ko waaye wax rek mu gëm ko maanaam koo xam ne daal moom day gëm daal bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illa hmm. ah, ñaare ku dul fen wallahi ndeysaan ku hmm. loo ko wax mu gëm dëgg la mu nekk qualité bu baax oh. mu nit koo xam ne du fen hmm. loo ko waay wax mu gëm ko day yaakaar ni mel la ñëpp mel waaw <laughs> xanaa kon koo xam ne day def loolu nga wax moom lu ko waay wax du ko gëm waaw kuy fen da doo wax du la gëm ah. dana saa saa a fi'lul mar'i saa zunuunuhu wax nga waaw nit ki daal bu ay jëfam ñaawee rek njortam ñaaw rek mhm. mu ngoog ku dul fen nag mhm. day neex a fen day neex a fen bu dee nag ki nga xam ne xibaar la boo xam ne bi faasix la mhm. alxuraan noonu na bala ngaa gëm fata ba yenu waaw fata ba yënu na ko leerlu na ko leerlu lu mooy rek mën ngaa dugg ci giraawaal yi dëgg la jërëjëf ci laaj mba am solo boobu macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo li sëñ Alioune Dia ki ci topp mooy Ahmadou Ba Ahmadou nee na moom day laaj oustaz euh, fa bi ay alaahi rabbikuma tukadibaan ci suratu rahman mhm. nee na moom lu bëgg nga tekkil ko jërëjëf euh, arrahman sunu borom wàcce ko ci alayhi salaatu salaam mhm. mu àllamal lim ay ay ay ay mhm. xéwal yu bare bare la la la léegi nag bu limee xéewal ba noppi wala ay xéewal hmm. danaan fabi ay alaa'i rabbikuma tukazibaan wallaahi yéen nit hmm. ak yéen jinne hmm. xéewal yi ma lim ban ngeen ci weddi na yàlla wàcciwu ko ah, wallaahi waaw loolu la loolu la baat yi di wax xéewal yi ma lim ba noppi fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazibaan yéen nit ak jinne ban xéewal ngeen di weddi ak kan ngeen defe ne moo ko def ko dul man jërëjëf ci laajam bu am solo macha allah allahu akbar jërëjëf oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo loolu sëñ Amadou Ba loola laaj eh, ki ci toppoon mooy Jamil Mbay mhm. nekk ca Yaraax cafétéria moom dafa wax macha allah ñoo ngi ànd ak yéen jotaay bi te di ko rafet rafetlu ñoo ngi koy jaajëfal moom tam di jaajëfal waa cafétéria bi yëpp tabarakallahu ñoom soxna Xadi Ndey Xadi Jóob ak ñu mel noonu ti nekk foofu mhm. macha allah jërëjëf Jibril Ba moo ci topp ginnaaw bi mu nuyoo indi ay CRM eh, di la ñaanal bu baax a baax nee na ab laajam mooy teggiinu juma la bëgg nga wax ko daal jumaa yentee gin la am jërëjëf ñoo ngi koy nuyu suñu xarit bala jibril ba te nekk ca tëngéej te géej ko dégg nag lool xaw ma daa nekk seen bi seenum réewum déet teggi ni jumaa suñu mbàkke mooy teggi ni mhm. jàkk mooy jumaa jumaa mooy jàkk mhm. kuy dem jàkk ja bu mu daw mhm. bu daw na sol lu set na sangu ba set ah te temp buy dem ci jàkk ja waa ñu samboo xelam bu àggee mu jiital tànkum ndeyjooram wax bisimilah julli ci bi ñaan yàlla euh, ñaan yàlla yërmande bu duggee te waxtu wa nekkul waxtu wuñ tere julli mu def ñaar ràkkam te toog su fekkee waxtu wa terewuñ julli te imaam ñëwagut mu naafila la la mu bëgg naafila bañ a tàllal ay tànkam bañ di xaddami ko ca kaw te it fay ab téléphone am mu def ko silencieux bi imaam ñëwee mu ànd ak moom julli la mu war a julli bu noppee génn ndànk génn tànk ko ndey càmmoñam bàyyi ndeyjoor ba ci biti nu lay nun lay génne jël ay dàllam ndànk dellu ca kër ga bu àggee mu naafila li mu bëgg naafila wa shukran ci laajam baam sala macha allah loolu daal mooy teggiini jumaa waaw kon ndekee dafa am ay teggi yu ñu ci war a sàmmonteel yu ñu ci ak kër suñu borom la di fi ne ko daan dem pale nii pale daa am ay teggin de la waaw am na xam ne boo ko fa defee boo muy tudd police yi ñu lay génn si dëgg la <laughs> macha allah shukran am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf mbokk mi ci laajam bu am solo boobu sëñ Jibril ki ci topp mooy soxna Joor Ndaw nekk fële ca Amérique Euh, nee na mi ngi nuyoo tey rafetlu jotaay bi nee na bi mu ko tàmbulee déglu yàggut waaye gis na ne daal jotaay bu intéressant la ba noppi itam am solo lool li mu bëgg nag mooy participer ci groupe whatsapp bi ak itam nan lay def ba mën a déglu émission bi en direct bu nekkee New York loolooy ay laajam. jërëjëf xam naa damay bañ a joxe numéro soxna si ñu daal ko ci woo léegi léegi ci guddi guddi. Mm-hmm. waaye daal bu ñu noppee nii bu wootee ci suuf ñu jox ko ko. Mhm. ndax boo ko joxee léeg-léeg ñi am na ñu koy jël te duñ ko soxla noonu. Mhm. waaye fi ne il est 23h da ngay daal di gis ko ko daal di woo léegi léegi ci saasa. la waaw moo tax nañ ko ko dencale su noppee. moom mooy toppatoo wàll woowu. waaw su mhm. noppee. mu woote ci euh, 33. 825 18 30. ñu jox ko soxna numéro téléphone. Mhm. Euh, soxna si topp loolu. incha allah muy Umu Albachir soxna Fat Diallo mële ca euh, Arudim. macha allah jërëjëf Oustaz jërëjëf kon soxna joor Ndaw buntu baa ngi noonu incha allahu taala ñu mhm. jaajëfal ko baax baax ci yëg googu di nuyu waa Amérique yëpp. di nuyu waa Amérique yëpp waa tabarkalla. Mhm. mbokk mu ci topp mooy sëñ xaadim euh, di xaadim Ahmadou Bamba Ngom. Euh, ok xaadim aaya ji la bëgg nga tekkil ko ko nee na afa bi haatal xadiisi tajabuun wa tadaxakuun wala tabkuun wa antum ba aaya ja jeex wa antum saamiluun mhm. suñu borom daa dafa wax wa najmi izaa hawaa mhm. maa dalla saahibukum maa xawaa wax a wax ba ba muy jeexal mu ne afa min haasal xadiisi tajabuun mhm. ndax yéen waxtaan wi rek ngeen di yéemu rek waaw est-ce sunu penc mii di Sénégal li ëpp ci nit ñi. Hmm. li leen di yéem ci alxuraan. bokkut ak lañ ca bëgg a dundee. dëgg la de. afa min haazal xadiis taajabun hmm. waaw ndax yi ci yéemu rek est-ce que. ay njàng hmm. neex na. wallaay Sass euh, yi am na solo. waaye kat wa taajabun waaw. taajabun. tey réew mi bu nit bu xale jàngee ba am entrant sixième. ni ñu koy fonke boo amee bac niñ koy fonke mm-hmm. mm-hmm. waaye nit day tere alxuraan bàqara ba naas mm-hmm. boo amee ndeysaan santal dëgg la loolu mooy yëf yi wallaay mu ne af min xasal hadis taajabun ne la teg mooy wata daxakoon di ree rek ak a muuñ wata daxakoon wallaay wa antum saamidun fu ngeen tolli way nag bari ay way lu tax seen penc bi bëri ay waykat waaw yàlla lu la laaj loolu da ko jaaxal waaw lu tax seen penc bi bari ay waykat ndeysaan bu antum saamidun fasjudu lillahi wa abudu ndeysaan waaw te ngeen su jot yàlla te jaamu ko mu gën ñi ngeen nekke lay wasukran ci laaj bu am solo macha allah am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf ci tont lu am solo li ñu jaajëfal ko baax a baax sëñ ah, xaadim ahmad euh, bamba ngom euh, ci laaj bu am solo boobu mbokk mi ci topp indiwut ab turam oustaz ngay nee na day laaj daal lan mooy àtte lislaam ci leb ci banque waaw leb de moom moo xam banque la moo xam du bank moo xam transporteur la moo xam commerçant la lépp daal bu fekkee ne dangaa dem lépp fukki junni mm-hmm. fay fukki junneeg ñaar mm-hmm. wala fukki junneeg benn mm-hmm. mbaa la nga leboon daal am na loo ca teg loola daa xaraam riba la sunu borom dana ko lebe noonu buy ba nga xam ne déclaré la guerre maag waaw tey guerre économique nag maanaam lépp lépp xaalis di fay teg ci xaalis di fay teg ci xaalis saabu ku ko def mm. foo ko mën a jële nag banque baag loolu banque moo ci bokk yem la guerre waaw moo ko yónentam incha allah wa shukran jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk mi beneen laajam bi mu def nee na boole timis ak gee lan moo ko war a waral ngant ngant ngant mooy waral boole timis ak gee mhm. ngantul tukki ngantul feebar ngantul couvre-feu yi waaw mhm. ngantul biir buy daw waaw ngàntul yëpp day waral ngànt daal mooy waral booli timis ak gee booli tisbaar ak takkusaan wallaay jërëjëf ci laaj bi macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo loolu mbokk mi ci topp mooy Mansour laam eh, ginnaaw bi mu nuyoo nee na ma nga fële ca Argentine eh, sëñ Mansour oustaz nee na eh, aj màkka lay laaj ndax am na at moo xam ne daal aj bañ naa am ba fi yonent bi jógee léegi comme nii ñu koy laam-laamee ndax loolu man mas naa am waaw ak gisuñu ko ci taarix wax dëgg yàlla problème bi kay mooy ndax coronavirus bi mas naa amee nii mu amee moom it <laughs> ndax mas naa amee nii mu amee mm-hmm. su fekkee mas naa amee nii mu amee loolu man naa am waaw loolu rek lay tekki mm-hmm. waaye daal jànguñu ci ne amee woon na nii mm-hmm. waaye nag corona bii ni mu amee moom itam ci àdduna si jàpp naa ne ami wutoon noonu. Hmm. waaw wa shukran ci laaj maam Sala bi. macha allah jërëjëf oustaz beneen bi ci teg nee na al humasa moom lu bëgg nga tekkil ko ko. waylun li kulli humasatin lumasa naam waaw sunu borom nee na. Hmm. mi ngi mi ngi tëkku gaa ñi nga xam ne. chiffre d'affaires mooy yàq seen digganteeg moom. ci jamaa maalan wa bu yaxsabu anna maalahu axlada hmm. kon képp koo xam ne ki chiffre d'affaires moo la yàqal sa digganteeg sa borom. sunu baam ne dëkkal wóylul nga jëm su mhm. wa sukran ci laaj mbaam sa masha allah <laughs> képp kuy wax ci lu yàq ay diggante waaw mu ne wóylul nga jëm wóylul maanaam lu yàq ci ay diggante comme euh, déedéet chiffre d'affaires chiffre d'affaires waaw chiffre d'affaires mooy suñ mbàkkee ko xam ne ki day toog nii mhm. defar benn projet am daan projet bi dëgg yàlla weeru jot war naa génne temps mhm. kon su amee ñaari weer muy at mi temps la waaye fukki at ak nangam temps la. Mhm. nekk ca lool nag ba loolu dox digganteem ak ay bokkam ki julleem. ndeysaan ba koo xam ne kii jege si nga ko di bëgg a wax. humasa wala lumasa. Mhm. humasa mooy mu jëwee la ci gémmiñam lu masa mooy mu jëwale ci bëtam mhm. pour nga sori alal ji muy am wa shukran masha allah jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk moomu di Mansour laam ki ci topp mooy eh, Abidine Diop eh, Abidine nee na oustaz bi bii nga xam ne moom la ñuy dund ci pandémie bi eh, nee na daal ñi nga xam ne dañoo faatoo Europe te yàlla dogal ñu faatoo ci tawat ji daa mel ne dañ leen du sang ni ñuy sange ko faatoo mhm. nee na daf bëggoon a xam lan mooy position wu lislaam ci loolu jërëjëf position lislaam mooy sang néew du farata mhm. sang néew du du farata sunna la ci moom wallaay tax su ngànt amee duñ ko sang mhm. maa ngi lay ne tili benn bés tëdd ba ay boosu deux heures du sama téléphone sonné ñu wax ma lu mel noonu ne ma ay gone fi nekkoon dañoo lakk léegi nag ndax mën nañ laa jël si nga seet si ko ma jóg ci guddi gi noonu dem hmm. bi ñu ñëwee lan nu gis mooy ñii kenn mu leen a sang te allahu akbar sang sax yombut laa ilaha ay mbuus lañ mujj jënd sotti leen ndox ñoom dugal leen ci mbuus ya door leen a mën a sàng ci ci kaw mbuus yi. Ah, loolu métti waay. munu fee weesu. ah loolu métti na. ñi génn àdduna itam ci bitim réew te munuñ leen a sàng. Hmm. dañ leen tuur ndox. dëgg la leen tuuree ndox mañ tooy. Hmm. ñu dañ ñu ñu leen su fekkee mu leen tu mu leen tuur ndox it su mm. boobaa ñaari yëpp day wàcc mm. ndax léeg-léeg nit génn àdduna amuñu ndox muñ ko sax sangee dañ koy tiimal dëgg la bi su ko doon ci laaj ba am solo masha allah jërëjëf oustaz jërëjëf loolu am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci laajam boobu tey masawu mboolem ñi nga xam ne ñoo fa génn àdduna seen ay mbokk mm-hmm. euh, mbokk mi ci topp ginnaaw bi mu indee siyaare nee na mooy Modou Faye nekk fële ca Thiès waaye indiwut ab laaj ay mm-hmm. nuyoo rek la indi ak ay siyaar xanaa fay nañ ko nuyoo dañ koy siyaar di nuyu paab Ba ndong loolu nekk ci Thiès di ko jaajëfal. macha allah jërëjëf eh, ki ci topp dafa wax ne day leblu aw turam waaye nee na day laaj ndax xelum doomu aadama mën naa xalaat loo xam ne boroom xel mi bëggu ko ba noppi am xelam di ko xalaat. waaw danay def de danay def léeg-léeg ndax seytaane mooy àbbamu xel. maanaam mhm. coppet xel mu yóbbu ko fële. Mhm. nga ne ko coppet delloosi ko. Mhm. loolu la ñuy wax surtout fii loolu moom nit mën na ko waaye seytaane moo koy def loo. dëgg la maanaam coppet xel ba ko ci dara. boo boo boo sàgganee daf ko fay bàyyi. boo sàggul noonu nag da nga koy jëliwaat delloo si ko rek. Mhm. jamono ñooy. koy sukuraat jërëjëf oustaz am na image boo xam ne tax day wëreelu ci maanaam internet bi bokkul ci laaj yi jaar fii waaye maa ngi koy jot nii. Mhm. muy lu mel ne ab euh, ab église ci waxin. Mhm. boo xamante ne ay jullit dañ faa dem di julli. xëy na dañoo amul fu ñu jullee ñu abal leen ko wala yu demee ndax lislaam dagal na la loolu. Euh, jot naa ci benn léegi boo xam ne bi alfa Diallo mii nekk ci daar ji moom ma ko yónnee. xam nga li ñu waxoon. ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura mm-hmm. suuf si yépp jàkk sama jàkka mm-hmm. fu leen julli fekk rek julli leen mm-hmm. kon nag bu nekkee ca église ba ñu abal leen ko mbàkke ba noppi abal leen ay rido yi ñu sàng Euh, nataal ya fa nekk hmm. ndax dañ leen abal ay rido ñu sàng ko ca nataal ya fa nekk waaw ba nga xam ne gis ñu lenn ñoo xam ne fi may xew la ji hmm. ñu noddu li xaam julli delloo leen seen jàkka hmm. amul benn problème insha allah dëgg la wa shukran jàmm na ñooy jàmm na ñooy <laughs> am na solo de jàmm jëfewut euh, tubaarkàlla jërëjëf oustaz jërëjëf te te kat Omar la ab able na suñ jàkka ñun tam waaw abal ko chrétien waaw chrétien yi waaw ñoom ñu def seen i yëf <laughs> ñu def seen i macha allah mm. am na solo oustaz jërëjëf mbokk moomu euh, di sëñ maam Cheikh Mbacke maam Cheikh Mbay moo ci topp mm. oustaz mm. wala moo laaj laaj boobu. Euh, waaw kay laaj boobu mooy bi ma jëlee ci maanaam ci internet bi euh, te ñu yónnee ñu ko léegi mm-hmm. ki ci topp mooy sëñ maam seex Mbay nee na ndax man nañoo tuddee feebaru corona bi lëmbaaji àdduna bi maanaam guerre mondiale xarban aalamiyan xaalisan ndax manees na koo tudde noonu. wala déedéet déedéet guerre mondiale moom sëñ Mbàkke bu buy koy doon diggante nit la ak nit. Hmm, loolu loolooy guerre. waaw loolooy guerre. Hmm. mu gàddu yu ngànnaay nga gàddu yu ngànnaay na ko Allemagne defoon ak France. Hmm. waaw. ñu tudd ko guerre mondiale xam naa mondiale gi moom ñoo ñoo ko ñoom ñoo ko ci wax rek mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne bokkuñ ci woon waaye nag guerre mondiale la tuddoon <laughs> kon nag guerre mondiale mooy ay xeet yu ànd ci àdduna si ñëpp di xeex mm-hmm. bokkut ak ñuy xeex ab ab ab virus mm-hmm. virus bi moom contre nit ñi du tudd guerre mondiale ndeysaan mooy sukkuraan macha allah kon kenn du ko tuddee euh, kenn du ko tuddee ay troisième guerre mondiale ak ñu ci aju macha allah teg na ci jeneen aaya jum bëgg nga walla ay bayit la wax ñaari bayit yu mu bëgg nga tekkil ko ko talaba al wusula lil waaw waaw waaw moom si daa wax ku bëgg a àgg ca yónent ba jëlal sunnaam si jaar ci su fekkee ba nga caa jaar hmm. àndal ak ko ca jaar hmm. koo xam ne du tegg yoon wa bu àggee nga àgg masha Allah wa shukran allahu akbar hmm. waaw mooy ci sunna si rek <laughs> ku ci mooy daal daal di wa shukran macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk moomu mbokk mi ci topp nee na ginnaaw bi mu nuyoo damaa am sama rakk bu jigéen euh, moom ak jëkkëram danoo am ay problème mhm. problème bi mooy sama rakk da koo ñaan baat mu ne ko euh, il faut nga delloo ma li ma la joxoon mhm. euh, te balaa ma lay takk mhm. après nag muy laaj ba xam ndax loolu na la ko lislaam gisee jërëjëf ci laaj ba am solo moom da ko nërta ay baat wallaay ndax ku laaj alal mayeetoo baat. Mhm. da ngaa def xulu. Mhm. da summeeku. Mhm. mi ngi yokk ci laaj bi ne te am nañ njaboot nangam nangam xam naa mi ngi xalaat ne delloo gi wërta yombe noonu. waaw su fekkee jigéen. da ngeen a ànd ba mu yàgg. yow ku góor ki bëgg a ci sëy ba da nga naan fase naa la. bu iddaam jeexee mu ñibbi. moom ku jigéen ki su ci bëggee génn deex fase ma wala may ma sama baat. bu fekkee ku góor ka gàntu na gàntu na. sunu borom nee na lu tax ngeen di nangu li ngeen ko mayoon wa kay wa kayfa taxusuunaha wa qad afda baadukum ila baadin wa axadna minkum midaaqan xalita kon bi nga xamee ne da nga caa dafa bëgg yoon ci sëy bi ñaan la baat nga bañ bëgg koo fayu alal sunu borom nee na lu tax nga ko nga di ko def mm-hmm. te ba ngeen sàngoo mbàjj ga mm. doo ko fàtte wallaay waxat afda baadukum ila baad mm-hmm. am nga loo jël ci moom loo ko mënta delloo waaw ngeen oh. bokk ngeen sàngu genn mbàjj cay waxin suñ borom su muntu ñàkk muntu ñàkk nag hmm. doo fa nekk lim naan lal beeg sa jaadigeeg basan gi déedéet hmm. lim lay ameel mooy may gu njëkk may gu njëkk oustaz foofu nag bëgg naa fi ab laaj mooy lañ joxe ci jàkk ja wala mooy lan may gu njëkk sëñ Bakke hmm. <laughs> mooy li ñu indi tudde koy wari gar ah bokkut ak li imaam di laaj noonu bu ñu xutbaa maye parce que ci sun ci sun urfu ñun waaw dañ ko xaw a soppi tuuti waaw li imaam di maye léeg-léeg onze mille cinq cent lay doon loolu la ñuy wax ne mooy trente mille waaye daal li nga xam ne moom nga àndoon ak say bokk indi woon ko. waaw deux cent mille. waaw ñu tuddee ko ko. voilà ndax ñun suñu uf moo ko xaw a soppi tuuti. dëgg la waaye lu bu njëkk lu la woon. Mhm. ndax jigéen ñi daañu woon yonent bi alayhi salaam man de damaa doyal sama jëkkër ji. ndeysaan jikkoom nag du moom a soof. Mhm. du diineem. Mhm. waaye dala am na lu may xeeb ci moom loo xam ne daal. doyal naa ci sëy bi. ndeysaan day am yonent bi woo jëkkër ji mu ñëw mu ne ko mu ne ko ndax man mu ne mu ndaw si ndax mën nga ko delloo tool bi mu la mayoon ci boor jàkk ji mu ne ko waaw mm-hmm. terrain bi mën naa ko waaye mën a jëkkër ji jëlal terrain bi te bàyyi ko mu ñëw ndeysaan kon kan loolu yàgg naa am ndekete oustaz waaw moo tax alxuraan andi ko alxolu <laughs> waaw macha allah lay ndeysaan jërëjëf maanaam waaye waa ji sañ naa sañ naa laaj alalam kii nga xam ne sëy naa ak moom ba am njaboot naan ko boo ma delloo li ma la mayoon ma wàcc la waaw yàlla nee na hmm. <laughs> su amul lu muy jurus kay waaw ndeysaan waaw ndax fa kay fa baat bi. waaw naka nga ko mën a defee. naka nga ko mën a defee. <laughs> waxu bul ko def waaye lii daal wax dëgg yàlla waroo ko woon a mën. ah très bien <laughs> dégg la. waaw naka nga ko fa wa kay fa taaxuzuunahu. Hmm. waxat afda baadukum ila baad muy benn. Hmm. wa axas na minkum misaan xalisa muy ñaar. misaaxan xalisa sëñ Bakke. Hmm. mooy jigéen ñaar du du nab tuuti. dëgg la. misaaxan xalisa la ko tuddee. kóllëre maam nobel gu fort. góor kaay moo fay nekk di yogo yogo la ko def yëf wala mu nekk ab ab ab kala nu mu koy waxaati ah. ab ab car rapide waaye jigéen moom. waaw léegi kat ko daa mel ne dañ naan moom soxna yi dañuy kii rek dañuy dañ lay nax ak dañuy nangam maanaam daa mel ne ñoom lañ ko gën a jiiñ léegi waaw par benn benn lañ ci hmm, waaw <laughs> par benn benn lañ ci waaye du seen tabia ñoom ñëpp masha Allah am na solo oustaz indi daaj fukki laaj ak juróom des na juróomi laaj rek ci laaj yi jaar ci email bi xam naa comme noonu lañ koy indee mu ñaar fukki laaj yi bu ñëwee ci ñaareelu xaaj bi eh, ñu boole koog laaj yi jaar ci téléphone bi insha Allah lu jub ci borom lu jub du mam ñun ñi masha Allah ba ci kanam